asalaamaaleykum mbokk yi nuyu naa leen yéen ñëpp ku si nekk sa tour sa sant tey nag Sénégal moom agsi nañu foo xam ne bi ñu amee indépendance ba léegi musuñ fa àgg ndax euh, li ñu def tey Ousmane Sonko musuñu ko def benn chef de l'opposition Senghor musu ko def Abdoulaye Wade Abdou Diouf musu ko def Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade musu ko def Macky Sall Macky fi ñu toll nii indi na sunu réew mi foo xam ne ñun ñu nekk tey jii bitim réew am na nu gàcce ndax lii ñu gis tey soo ko daan gis si film cinéma lay nekk wala feneen ngay mu mel nii dafa dañoo nekk jore bandi wala criminel wala jaaykat drogue bu mag comme Mexique lañ koy gisee wala yenn FBI yi wala whatever loo mënti mënu wax nga wax ko lañ gis tey jii Sénégal mais Ousmane Sonko ak luñ ko mënti yóbbu justice dem na wuy ji mi ngi ñibbi këram mais ni mu librement ni demee wuy ji noonu la war librement ñibbi këram fu ko neex mu jaar mais loolu mooy démocratie nekkul di yë di wax kenn ñëwal baare fii wala daf fee ñu fekk ko si otoom toj vitre bi benn loolu agression la dafa war a porter plainte contre l'État du Sénégal parce que dañoo yàq bien matériel am dañ ko yàq yàq otoom beneen bi vitre yi ku waaye ku xam luy vitre mën na dugg si bëtam mën na dugg si noppam mën na ko gaañ donc manifestement physiquement mën na ko gaañ lii ko dal nag ku ko xalaatul jamono bii jéemoo xalaat yore mbubu Ousmane Sonko yaa ngi fooyee sa bakkan nii la dem démocratie bi nii lañ ko suxatee ba dictature taxaw ba ëllëgee waxuma sax ku bind wala ku wax wala ku génn ku xaq sa xat rek ñu jël la yóbbu si kaso bi ñu ngi fàttaliku 1967 bi Senghor euh, fusillé benn benn nit bu ko doon bëgg a rey ak ki ki yar rayoon Demba Diop gis nañu après sénégalais yi ni ñu leen muselé gis nañ li xewoon Guinée aussi amoon na jamono kenn du mën a déglu rajo Guinée si biir Guinée amoon na jamono boo tuddee Léopold Sédar Senghor si Ndakaaru ñu jàpp yóbbu kaso fi ñu bëgg indi nag ndax or ak gaz ak pétrole ak ay dossiers yoo xam ne bu ëllëgee bu changement de régime amee ñi ñi ñuy tuubaal ñu bari danañ dugg kaso. kon fi ñu toll nii nañ delloo si suñu xel Ousmane sonkoo ku war a ku kun war a war a war a sàmm jàppale la parce que lenn moo am solo li may combattre du pour moom wala doomam wala jabaram pour sénégalais yépp la man nag dama ko see fekk si fi ñu toll waaw àll. alhamdulilah ala kulli hal rafetluwuma lim def Touba rafetluwuma nekkaan ba Touba te defe naa ni message bi nga xam ne sëñ Modou Kara Mbacke yónnee na ko ko dina ko dégg te defe naa ni loo xawoon Mbacke ak Touba dootul am te dina ko wormaal mais fii ñu toll nii nag liñ ko def tey toj vitram dugg si biir jël oto bi génne ko si otoom kooku tey ji wax dëgg yàlla ñëpp. war nañ si xalaataat mën na leen daal ëllëg lii raam nag si ñàkk ba la jëm xam kenn mu kenn kenn fi ñu toll si Macky Sall si yàlla nu yàlla subhaanahu wa taala dimbale ba képp kuy noonu Sénégal képp kuy noonu Sénégal laa wax képp kuy noonu démocratie sénégalaise yàlla subhaanahu wa taala ñun nan bàyyi doomu jàmbur bii mu def li muy def nen bàyyi joomu jàmbur façon bi muy politiquer daf see fekk nit ñi tontonte la. parce que amul élégance ni ñu koy politiquer ku ma li may wax nag ku naqari rek maa ngi si jégalu mais sama xol tey jii moo gis loo xam ne mënul neex parce que man si dëgg laay juddu dëgg laay màgg dëgg laay fas yéene de yaa salaam Samba la mooy wax ak yéen fii si yoonu dëgg.